na jamono. mais dama lay gën a la électrogène. dama lay gën a nangam nangam. dama lay gën a conforté mais booba xam nga ni booba lu ñu la ko jaay woon nga jënd ko. mais dama lay gën a conforté. waaw parce que tey jii courant phénomène civilisationnel la. loolu tax muy denrée boo xamee ni di ci wax ay perte xel mënu koo dégg parce que bu ko nit ku amulee da koy jaral lu nekk ndax tey jii mooy facteur de production bi ëpp doole ci activité économique bi. ndax tey jii du jaagee ni rek yokkal naa la sa facture courant. moo tax ñu mën a def li ñuy def. waaw waaw moo tax du yaagee ni yow xam nga yow sax tane nga ndax yaa ngi jël sa publicité mais am na koo xamee ne tey jii sama mbokk mool ba nekk sa ndar tey jii boo ko yokkalee courant am glace gi muy jënd day yokku transport am day yokk ñam war a jàppale day yokk donc du retrouver wu rek ak 7 francs de kii sur le kilowatt. dafay retrouver dayoo goo xam ne moo tax gis nga gis nga il faut que nit ñi ñu commencé waat et euh, mm-hmm. c'est heureux mm-hmm. même waxtaan bi ñu ko tàmbalee moo tax plus que nit ñi gën a impliqué wu ci développement réew mi mm-hmm. plus que cause yii nit ñi gën ko manque manque plus que mu am solo ndax bu dee ñooñ li yàq réew mi mooy lépp luñ fi mosoon a yëkkati am opposition indi pouvoir mais question wu électricité c'est une question nationale question de survie la question de dundin la question de nekkin la de justice la. d'accord et par conséquent état mënul dem ki nii muy demee nii. dafa war a dellu gannaaw ndax am na jumtukaay yoo xam ne bu ci taxawee. mën na endosser li nga xam ne mooy surplus bi nekk ci. kon amoon nga mbetteel ci bi nga xamee ni ñenn ci waa ñoo lànk yi ñu ngi séddale seen ay ñu jàpp leen euh, ci police. ah bu baax a baax parce que loolu méngoowul ak Sénégal Pape mais ñun xam nga il faut que ñun ñëpp ñun ñëpp xamante nañu ñii le Sénégalais du nit gis nga ñaar moo ci nekk nga bàyyi ma ma def li nga xam ne moom la ma yoon may def ko ak teey def ko ak tek àndul xeex ak du xuloo wala ba ñu dem wàññeente weex nga jël yat ma jël yat yàq si deux choix la te réew mi je pense que ni il faut que ñu bàyyi mayante cër mayante cër moo di ñun ñii nekk ci biir opposition bi ñi ci mhm. ëpp si ñun mhm. am na ay bis takk nañu suñu ndigg mhm. engagé suñu bakkan engagé suñu coono engage suñu lekk ay xale yu tuuti man sax boo ma ko defee nga ni jar na ko war na koo def mais ay xale yoo xam ne ni xaaruñu ci dara ñàkk nañ ci seen bakkan. pour lan pour que les droit élémentaire yi yi nga xam moo lay tax ngay respirer. moo lay tax nga am mbégte ni Sénégal nga bokk boo demee ba nga xam ne yëkkati këyit jël sa nawle pour li ngay défendre yow mën koo xam mënatoo ko am ci sa réew bu ñu la nee démocratie nga fan nga koy bu ñu la nee état de droit nga fan nga koy gëmee bu ñu la nee yéen a si réew mi fan nga koy gëmee. mais pour yow aussi démocratie mooy envahir mbedd yi jaar ci tali bi pour aussi lu lu. démocratie la mais Pape. boo xam ni keneen aussi am na beneen préoccupation. bu dul sa bos mais sa préoccupation yow warul yàq sama préoccupation est-ce que man nan laay distribuer sama flyer te doxuma jox ko nit ñi. nan laay mën a joxe sama xalaat te daw ma ci télévision yi wax ak ñoom pour pourquoi yow mi nga xamee ni sama adversaire nga wala boog dàkkaaru leeg man ci li ma taxawee nga bëgg ma inventé mode bu amul fenn ci àddina ki nga xamee ni flyer la am bu ko distribué fan lay jaar ba nit ñi yëg tey gis nañu tey ji ostracisme bi am ci rajo yi ak télévision yi lépp fattu na il faut que les gens aussi soient inventifs il faut que nit ñi sàkk ay pexe pour que seeni ay préoccupations parce que affaire bi rapport de force la il faut que ñu créer ci citoyens yi yeewute ak ubbeeku bu war a tax xam ne lii yaa wax baat bi de boo waxee rapport de force su fekkente ni wax nga rapport de force est-ce que kon doo doo doo doo dem nag ci ci ci jàmmaarloo dafa war a am. parce que bu dee rapport de force la taxawaay bi alkaat yi taxaw dañ ko war a taxaw taxawaay bi état bi war a taxaw si dañ ko war a taxaw. xam nga bi ñu fi toogee ba léegi man waxaguma leen ne la policiers yi au contraire dama xeeb seen taxawaay. Mhm. moo tax nga xam ne sama position dafa dafa leer nañ dama xeeb seen taxawaay parce que am na lu mu ñu jàngal suñuy déficit sécuritaire par rapport ak terrorisme par rapport ak yu bare te loolu état war ci def ay taxawaayam je pense que ni xam ne ñi may waxal xam nañ li may wax lu mu doon dafa ñu war a indil aussi citoyen bi exercer ay liberté am te exercer su liberté yooyu moo ñu war a mën a permettre ku nekk suñu gis ci suñu bopp mhm. bu ñu ko ñàkkee am on est foutu. On n'a plus d'état de droit. Parce que état de droit, okay. état de droit, ce n'est pas le droit du plus fort. Mhm. gis nga policier bi première fonction mooy assurer sécurité wu citoyen bi mhm. du assurer sécurité wu président de la république au sens dafa am conflit ak citoyen bi mhm. gis nga moo tax ma ni la le débat de fond débat d'institution la du débat wu dialogue national. parce que lañ fay wax foofu. amul fenn fu ñu koy wér après. d'accord honorable kon ku la dégg moom jarul sax ngay euh, ñuy ñuy am ñaari xalaat acte bi nga xam ni daam bi euh, def na ko ci Londres ci président de la République euh, pour demander libération gii Marius Sagna ci foofu nga xam ni bitim réew la loolu moom danga koy da nga koy apprécier kon xanaa. awma pour apprécier mais comprendre naa ko bu baax a baax. ok xam nga lu tax moom laa doon wax ni la ab undu boo ko tëjee ci benn nekk tëj parentel tëj fenêtre tëj bunt yor sab yat di dóor. bu la songulee c'est que du und dina am fenn foo xamee ne boo fa yóbboo nit ñi bu nit ñi jëmmee naan lu tax ñu defee nii lu tax ñu defee nii il faut que ñu xool la cause yaakaaroon ñu woon suñu amoon liberté d'expression yi interne ci suñu biir su fekkonte ni tey jii boo bëggee def meeting kenn du la tere nga dem ci saal ñu jiitu napp waaja nga dem feneen ñu jël beneen waaye teg ka fa yaakaaroon ni c'est liberté simple yi nga xam ne mooy neexal réew mi moom lañ daawoon di am même jamono yu gënoon tàng sax si jamono Abdou Diouf dañ ko amoon doon ko exercer recul si recul et c'est pourquoi parfois ça fait mal quand à l'étranger tu vois un président de la République extrêmement vulnérable parce que nit ñi boo leen tëncee yépp xam ne àddina léegi c'est multipolaire tey boo ma ñëwee Sénégal mayoo ma fi dara boo demee bitim réew du ma la may dara mais est-ce que fu ñu jëm dangay ngay def def lu maa la gën a mënal dara non mais dara mais da def def lu maa la a def tax ñu war a yegg foofu te waroon mën a les règles yi ma lay wax les institutions la force de nos institutions les hommes ñi nga xamee ne ñoo war a am fulla am fayda te bañ nekk ay tarbiyakat ay jimaamu exercer seen responsabilité tey jii bu juge yi matoon lu ñu waroon mat ci wàll googu amaana tey jii kon respiration dina am te président dina tukki dem fu ko neex tàccoog sant ak gërëm ndax as gan bu ñëwee da koy teeru teral ka mais boo demee ba nga xamee ne bu ñëwee dootul doon si sa kanam gan wala leneen lay doon je pense que ni ce sont les causes internes yi nekk si biir réew mi moo ñu honorable am na lu ñuy dégg ndéem xam naa ne yaa ngi koy dégg muy troisième mandat bu président Macky euh, dafa mel ni sax am na fu ma for nga ni loolu du sax troisième mandat coup d'état la mhm. coup d'état coup la dafa warul mën a nekk ci réew mi ngir ñaari mbir benn bi si njëkk mooy moom président de la république Macky Sall moo ñu indil constitution. ci ay anam yu leer nañ wax ca wax ju leer nañ ba pare commenter sénégalais yi constitution ba. la mu waxoon ba léegi dafa am loo gis lu ko dindi. non moom attends même ma yeggale rek ma ni commenter sénégalais yi constitution bi mu ñu wote ni mandat yi moom ci moom jeex na kon pour man lu ko fi mënti sulli faux lu ñuy sonal la lu ñu amalul benn njariñ la bu ñu demee nag ba jamono candidature jat moom Macky Sall wala keneen ku ko ci ànd ak moom xëy suba ni kat nee nañu dafay déposer candidature am déposer na candidature du troisième mandat ndax suñu constitution tënk na ko nee na ñaari mandat yu toftale nga mën a am te mënul yokk jëm ci leneen moom mu commenté que ni ko loolu mooy li am jeex na par conséquent il faut que ñun ñu xam fii ñu toll ni léegi gumba war naa tal leneen lu dul tëbi teen tey suñu problème mooy suñu problème sécurité dëkkuwaay bi ndax jag naam jagul ndax sénégalais bi bakkanam a ngi ci xottam de est-ce que condition de vie qualité de vie koppar yi mu war a am pour dund dund ko jag sàmm ay njabootam sécurité da ko xeeb dama koo xeeb bu baax a baax parce que li ñu dimbaleeku ak li ngay dégg ci réew yi la war yëpp waaw parce que lépp di sant yàlla xam nga sant yàlla ndax su réew yooyu dañuy jouer rôle dañuy rôle jouer si zone tampon xam nga sa sa sa nawle doo ko doo ko doo ko doo ko yéene lu ñaaw. Mm-hmm. mais suñu ceinture de sécurité ñun dafa yaatu ba jëlaale Mauritanie jëlaale Mali jëlaale Guinée parce que foog problème ñëw si ñoom ñu koy gis muy évoluer ba bu muy yegg si si ñun mais du performance interne bu ñu amagum. Ah te ñu sant yàlla ba ñu amagul benn yoon boo xamee ni ñu natt suñu capacité te yàlla nañ ci yàlla musal ñu bañ cee yegg mais li am solo et pense que ni condition yooyu. mooy condition extra yi nga xamee ni si lañu ñu waroon liggéey liggéey pour wax ak nit ñi ci télévision yi ñu xam nan la ñuy demee ci mbooloo boo déggee tëll ci mbooloo lan moo war doon sa première préoccupation ndax bu ñu fàttali koo Sonacos ña fa faatu woon kumpa moo leen rey mbir nee na ji yi xamoon lu mu demee nga dem di wut loo nettali ba musiba fekk la ci tey ji problème problématique gu conflit. Mhm. diggante réew ak réew. dafa soppeeku. Mhm. dañu war a dimbali nit ñi. si mhm. anticiper ci li nga xam ne bu ëllëgee bu ñëwee suñu gaañ ñi bañ a metti. ok moi je pense que ces question là. plus les questions yi nga xam ne moo jëm ci transparence utilisation alalu réew mi ak investissement catastrophique yi ñuy def yooyu je pense que ni moo ñu war a itteel. yan xeetu investissement benn bi ci gën a bon tey jii ma jàpp ni fanfaronnade la folklore la teguwul fenn mooy terre bi. ndax tey jii boo nee da ngay xëcc dem jam ñaar jow trente et quelques kilomètres nga ni huit cent milliards nga fay def te jam ñaar jow kenn nekk ko fa nga ni da nga koy taaw yi jëmale jas jas nga ni dina yegg mille milliards. mais Cheikh Bamba xanaa yow ci xaalis bi ngay wax mais doo ma wax ni ma xanaa bijou bu mel noonu. doo ko apprécier. yow mais bala nga naan naam ne fa yow daf du sa priorité ndax amul la njëriñ